ginnaaw raay yëpp. bëgg seen réew waaw ginnaaw taxaw nañ ko nag. ñi ki géejewaay ni ñu taxawoo El Hadj Ahmed Aïdara. bëgg seen réew rek leen yóbbee lii nag. Guy Marius Sagna aussi bosam tey la. Ah, waa ñoom seen verdict moom xaw na guddee trop. ajal su ma am jaara fa na guddee trop trop trop trop. man daal ay une heure du matin. yaay journaux yi nee na ngeen euh, prison Sébikotane bi. Mm-hmm. xam nga prison bu maam jaara faam nekk tamit faw nit ñi xam ko. ayim si waxtaan nañ ne damaa yaakaar ni bureau la génn. ah dafa leer naa eh, yow naaj du la laal. sama yaay nee na ñu ngi woon ci jàmm ci seen. Ah, ok guy macha allah. Ah. waaw waaw. ma waaw. waaye jàmm jooju jàmm jooju jàmm jooju moom bëgguñu ko ñoom. Hmm? waaw waaw waaw. non kenn kenn naam ki yéenewuñu leen ko. lu ma feebar feebar. Euh, maa ngi sama xol bi yëpp mi ngi woon ci seen procès yi. am na yoo xam ne sa xel daf fay ne. Ndiaga Mbaye maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. ñoom su ko déggee bu nee càpp ci noppam moo war a jël téléphone woote. billaahi sama jigéen jooju bàyyi leen ko. c'est une brave dame. jàmbaare bu bëgg Sénégal. jàmbaare bu Sénégal jaral lu nekk. mu bàyyi léppam. Mm-hmm. mu toog di xeexal askanam. kooku même bu fekkee dañ ko nar a teglu lu métti. yow mi njiit réew war mm-hmm. bu dee ñi ngay àndal rek ci parti bi nii. non ñoom ñu tax nga gis sa faay. mais opposants yi ñooy tax nga gis say faay. pouvoir bi sa gouver sa gouvernement. dëgg sa liggéey. Mhm. loolu xam député Mame Diarra Fam lii de test la rek ndax politique bul nangu ku la saaga bul en fait bul bañ ku la saaga bul bañ ku la xas bul bañ ku la tam dëmm euh, yow yoon wa nga nekk nekk ci rek te nga xam ne yoon woowu lu ko tax a jóg mooy askan wi. Mhm. moom bu ñuy wax député du peuple man loolu xam député maam Diarra Fam gëm naa ne ah. député du peuple. moo fi nekk bu ñuy wax député. Mhm. drame boobu fa am. boobu fitna ga ñu teg euh, euh, euh, migrants yi. Mm-hmm. loolu gëm naa ne boobaa dina si xar tànk tuubeem dana taw wax. waaw anam gi leen faate noonu kay gis nga situation vidéo ñu ngi circulé moom député diaspora la mm-hmm. moom ba muy xeexal diaspora boobu nekkagul député kon nag l'honorable namoon nañu la lool waaye namoon nañu la fa ba ba ba fii nam yem nag waaw man ma namoon kàddoom sax moom tax maa ngi koy jéem a woo sànq ba léegi pour laaj ko nu mu toogee woon ca kaso nee na dafa defoon ay ay ay léttu maa ngi lay nuyu <laughs> nee na jàmm de. pour moom nii. <laughs> yee nee na ma maa ngi si jàmm nii de. nee na mi ngi si jàmm. man gisoon naa ko dugub. yaa xale yi yaa ñi may message. waaw xam ne dalu na. waaw mais mais maman. mais honorable nekk daa sénégalais yow la bëgg. sama yaay sama yaay. nekk sénégalais yow la bëgg ko asalaamaaleykum wa rahmatulah Sénégal. waaleykum salaam waay waaleykum salaam wa rahmatulah yaay booy. mais Sénégal namoon naa leen. <laughs> yaay ñoo la raw. Sénégal nag Sénégal maa ngi sa ànd ni. moo ma tëj lii rek. <laughs> xoola xoola xoola. il faut que nee na tëj na ma pour. <laughs> non mais fii Sénégal réew jaay leen ko jox ma sama wàll damay ah, xam nga. yaa foo jëm. non mënoo dem fenn. mbaa du la ñu bëgg. réew mi nee nan yow la ñu bëgg. Ah. maa jaale bi ma la naroon jaale si moo ko soppe nekk. waaw gis nga waaw ma ba ni suba laay ñëw président dem dem dem lii waaw. maa ngi lay nuyu bu baax yàggee ah. ziar ndeysaan ndax maa ngi daanaka dama yeewu normal rek. ndax aw ñàkk moo ni nelaw xam nga dañ naan boo jógee kaso da nelaw da ngay yee da ngay sonn. ndeysaan d'ailleurs quatre heures du matin laa egg si sama mais mais deuxième journal bi dafa mel dafa am piqûre bu ma ko yee di ma ko dégluloo moo tax. wallaay wallaay wallaay et c'était comme aussi bi ma nekkee fële prison. ndax nit ñi ñu ngi doon dem. pële di xotaan ñu bëri di ma see di ma wër. Mhm. man maa ngi woon fii ci liberté système. Ah, ah, uh-huh. ci madame Senghor. ci côté bi na yaa ngi sa bi kotaan ci côté bi laa nekkoon boobu nag moo gën a siiw parce que man foofu laa làqatu woon. Uh-huh. mais yàlla dimbale na woon. <laughs> Eh, mais tamit naa la de prison bu baax sant yàlla. Eh, sant yonent bi sant Cheikhul Khadim sant Cheikh Abdoulaye Mbacké sama sëriñ sant samay waajur. sant sama. ñi ma bokkal ndey ak baay parce que sama ay dundul sama papa dundul waaye mbooleem ku ma bokkal ndey ak baay maa ngi lay sant dama koy wax a travers la rajo mm-hmm. askan bi ma bokk man maa ci njëkk a dugg prison askan waxuma xeet de askan bi ma bokk maa ci njëkk a dugg prison mm-hmm. daal tooñ mm-hmm. te defuma dara waaye nattu yàlla fu nekk lay jaar dëgg te li ma leen wax ci procès bi ñëpp di dégg ndax bu ma ku ma xam doo ma delluloo ginnaaw ndax man xaw ma dellu ginnaaw. gi fa nga bokk la. dëcc pour njóogu sama maam 1549 ba muy dem di xeex ak buur ba jolof léegi fuli fakk amul fukki at ak juróom-ñaar du ma dellu ginnaaw maa bañ. dëgg dëgg dama leen ni man su ma xëyee suba tey kër Barthélemy Diaz laa yenn bu ngeen mënee jàpp saa yu ngeen yeewoo ut leen kaar di ma jàpp ndax saa yu ngeen yeewoo jàpp li ngeen di tere loolu laay def. Mm-hmm. parce que réew mi kenn moomu ko. Mm-hmm. sama tànk bi saa yu ma xëyee suba teel dinaa xëy di dox sama soxla ndax di nga privation de liberté privation le droit d'aller et de venir saa yu manqué ci réew réew mi il faut ñu xoolaat damay dox ba samba di ca baayu demba gis dégg loolu femme ba man mu toll ni man hmm. samay doom ñëw vacances nga jàpp ma téye ma dix jours privé ma liberté privé ma seen affection privé ma sen amour ba pare naan ma amul benn charge contre toit tu es de la république tu es parlementaire ay ca nañ dem. relaxé la. bu Sénégalais yi nee nañu jàmm fii am. on y va man de sama jàmm du tukkee ci ñoom man man barke Cheikh Khadim du ma leen baal dara baal naa leen ci ak ndax ndax ak bi nga bi kuko teg ku ko ñeme ko antan ku ko sën ñeme nga ñu mm. Mm. may sant waa ginnaaw raay bu baax. maam su ma gëstoo ci saal bi yam ci. waa ginnaaw raay ay magum jëm jëm jëm jëm ñu toog ci biir saal bi. Mhm. suba ba ngoon. man dama yéem ci maam yàlla. yaa ko liggéey cinq heures du matin la ñuy jël ginnaaw raay ñu bi dell. yaa ko liggéey sax dañ nga doon waa waa honorable xanaa saal bi yaa koy remplir remplir ko Sénégal la ko remplir. loolu ku ko bañ ci ngëmmeen ngay dee. ñi mhm. ma mel nii. ku mu naqari barke Cheikh Abdoulaye Lahat ci ngëmmeen ngay dee. Mhm. ngay jàll xale yi ñu tëj leen ci kaso lu mat cinquante personnes ngay jàll di traversé xale yi di yuuxu maam jaara yow la ñu wax yow la ñu bëgg xale yi aree ki mu ku ko def ba tax mu denc na ci nga meen lay dee plus sortir plus fort hmm, dégg nga loolu la côté espagnol sama yaay nee na pankul plus fort pankul de loolu moo ne ma mamtulaay ma pankul daan jéy dani ndeysaan di sant Ousmane Sonko Sénégal hmm. hmm. laay waxal nag di ko sant bu baax di sant samay avocat nekk Bamba Cissé ndeysaan poule d' avocat vingt plaidoyer kenn ku ci jëkk kenn ko ci yëkkati da naan waaye audience bi yàlla mu jeex waaye ndax li muy wax rek. Mhm. le temps li muy wax rek pour procureur. Mhm. ay mag yu toll ñun defuñ dara ngay wax di balbetaare dër ci instant yi tiit tiit dër. loolu di balbetaare. di balbetaare mooy dër. Mhm. balbetaare italien mooy wax balbetaare. dër dër ci instant yi. parce que amoo loo wax. amoo loo wax nit nga fekk ko siège am enlevé ko de ci faal. man nga fekk ma sama soxla nga di ma ñib. yaay député ci maanaam jàpp leen pour le plaisir de jàpp nii eh. loolu moo fi a jeex man ma ko nangul kenn man kenn du ma tëj sama kër mhm. réew mii dafa existé woon avant Macky Sall existé avant président Abdoulaye Wade existé avant président Abdou Diouf te day existé waat après président Macky Sall je te le dis parce que bët ki dem moo njaay en deux mille sept mhm. Italie la ma fekk ma am sama teranga mhm. am li ma bëgg a am lépp mu boole maag moom xam na man xam na mhm. jaajëf te seede yaa ngi fii kenn kontaan naa bu baax. la ko dañu namoon rek baat bi rek. rajo bi sant nag. garde pénitentiaire yi nga xamante ne ñoo nekk mas bu liberté six. Mhm. directeur bi. Eh, directeur bi. ñoom Evelyne xale yi mais di sant nit yoo xamante ne. mënuma leen a citer par nom. Mhm. c'est des détenus. Mhm. foofu bu ma fa demul woon du ma xam mission bi ma yàlla teg. Mhm. merci beaucoup dafa dafa tout ñu ne rap mandat dépôt pendant cinq ans ay jigéen. dafa doon leen mandat dépôt quatre ans. defoo seen te tuddoo seen dossier. bokkoo leen. mel ni suñu bi ñuy nag di ko jox ministère de la justice ni kaas bi da koy lekk rek di tëdd. dafa doon lekk si mission bi lay xaar rek mandat dépôt yi nekk ci kaso yi. mission la woon lii. technique injustement nit koo xam ne atte am deux ans. tëdd ci kaso bi ñuy doog a xam ni àtte nañ la depuis deux ans. Mhm. am na mas bu liberté six mhm. am na ci kaso yi loolu nag mission la woon. Mhm. maa ngi di sant parce que yàlla duñ ko bëgg a toroxal par yàlla teral ko. xoolal su ma bëggoon dañ may sang. sang laa wax sang nee naa la foofu yaay dugal ci douche bi ñu sang la. ndeysaan yaay defal lii yaay lekk yaay naan man mu duma ndekkee mburu liibar damay mm. xëy ñu tegal ma table ma ndekki mburu liibar ay saucisson ñoom nekkee <laughs> ñoom beurre ñoom seen fromage man loolu sax du ko taay maa ngi nii xëy naa ba dóor sama dose bu tàng. ñëw toog fii di nga génnaaleeg leer leer gu bari jaajëf waay. man génnaaleeg leer de samay nettu kaso. amul sax ñaari yoon laa leen bees bi génn ci tabaski ji létti kaso yi. mooy madame bu bees bi génn ci eh, jërëjëf jërëjëf ñëw na ba tàyyi ndeysaan rëbb fële SR gisuma mhm. eh, ñëw na ba tàyyi SR gisuma te loolu tamit